waaye guys nuyu naa leen démb ba sàccay nu ñu nekkee si dëkk bi mbaa jaam te ñi nga xamante ne xale yi ndaw lañ seen 18 years wala seen 17 years sa mutu ñu nekk si biir dëkk bi ah ku ba ñu jéem laa rapino ku ba ñu jéem laa rapino ah man ma man suma boppa gars yi man la ñu attaque suma taxi driver mu ngi drive ñu ngee dem imagine moto buy daw nga ibi moto bi pour jël suma mobile bi xamu ne maa kii la bu ma dóoree loxoom bu ma dóoree loxoom bi kam waxoo ko mu bàyyi mobile bi si biir moto noonu ñu dem pare nguñ de gars yi toppaat suñ gannaaw su ma defee bi si la dugg a génnee jaasi gars yi tasaaro ñii mel nii doma ah xale yi ndaw fan la ñoo jëm lan lañ war a def ba xale yi wécceeku dem school jànga ah kenn mënut a xam problème bi fan la kenn du mun a wax problème bi fii la wala fii la waaye man suma kaddu laa joxee suma kaddu laa joxee soo su amee nga am ne xam ne yaa ngi amee xale bu digéer boppa téye leen xale yi ah sécurité yi tamit ngeen xool naka la ñëw man mënumaa understand ñii sax kenn mënul leen dara kin mën nañ dara because duñ dugg si biir de si mbedd bi la ñoo nekk si kaw tali bi soo ko seetee ñu jëm laa def luñ laa def profito la ah ba pare ñeneen ñu ñàkk fay day nekk foofu amee seen moto di ah du leen nekk nit wala ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen seet loo leen def di mbaax nga ñaata nit lañ sàcca ñaata nit lañ toroxal ñaata nit lañ dog seen baag ay jigéen di leen toroxal ah am na koo xam ne góor la artiste la ñu jàpp ko attaque ko lii la la nii suma kër anti tam mu ngi nii euh, ma xool man bi maa nekk di rang xa bisaab njëkkee gars yi dem nañ daaji nañ foofu ba dugga fa ah soo gisee seen tournée yi si yu kenn xamut si so yu kenn xamut la gars yi indi ah lu ñu dimbale bu ko gars yi yuuxoo fekk mu ngi bàyyi loolu noonu si beneen néeg bi ko loolu noonu suñu yuuxoo dafaa ñu rey su fuul kër ah di la la nii ba du leen bàyyi sàcca bi du leen bàyyi